maa leen di fay. waaw mais Reug Reug boobu ba léegi yaa ngi xaaju rek lu xew da nga mer wala. non xaaju ma dara sama yaram a tàng dañoo indi sunu mbër sunu mooy kilifa yi di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam. jaay. waaw mais lan moo ne sa kanam fu mu ne nii ban combat. si sama kanam lu si ne lu ma làmb boole rek ma bëre ak moom. jaay. mais tudd tur. du ma tudd tur ndax tollootuma fu may tuddee tur mbër man damaa bokk si làmb làmb làmb damaa yaakaar si làmb laa bokk ma see nit ki da ngay wax ak yàlla rek tax te bi ma jàppante ak moom am na doole diis na liggéey na si combat bi loo xam ne maanaam bisu daanu moo ñëw bisu daanu moo ñëw bisu daanu moom bu ñëwee cuune ngay doon da ngay daanu wala ku li an da ngay daanu ñu ngi koy encouragé bu amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndam bi bi jeexee oote oh, déggante déggante naa ak mag ji mag ji conseil ma am na mag ju baax lambu lambu bu boolewul war a xaajale ñun ñëpp for on est ensemble surtout rek def si la rek ñun ñëpp for ñëw ko Adrien Senghor ba léegi. non ba léegi ñëwaguma nag. yow da nga dawal. non léegi rek incha allah léegi rek bu soobee suñu borom. waaw mais loolu dara euh, tey jii man moom maa ngi fi pour làmb ndax euh, comme li may wax rek. Euh, Gris 2. doonul jii Gris daa war daanu daanu yàlla suñu borom moo ko xañ keneen xañu ko liggéey na lu mu waroon a liggéey lépp si bien sûr. lu tax bëgguma ama ama champion la champion la def na wane na fi loo xam ne ñun ñi am nañ fret bëgg am nañ fret pour bëre moom champion la dafa diis waaw loolu lañ doon wax ay moroomam loolu lañ doon wax ay moroomam na ñëw ban laale ba pare ba arbitre xaajale ñu ba pare kenn ba mu yëkki sama loxo ba pare dina xam kan moo diis yee non força amul du ma bëre ak moom Jordan moo ka daan te Jordan kañ laa ko daan ah trois ans après trois ans kon du ma bëreeg moom làmb booleeguñu voilà boobu combat la guy gi dégg gis naa benn sortem nas nee na pare na pour bëreeg man maa ngay xaar ma na pare na tout ah ndax nas nas ku bëgg guy gi la ndax koo xam ne cinquante millions wala quarante millions bu duggee si kër nu muy def kër googu nu muy def ah ko yow mi encaissé nu muy def nu muy def waaw kër gi day naat kon nas lu baax la ko bëggal yaa ñu nga xaar promoteur dox si rek wasalaam ba bis ba ba mu taxaw bu soobee suñu borom. boo may wax may wax mbëru 40 millions wala 50 millions yaa may dégg ndax man li may indi si li may indi li may indi si si làmb si mbooloo doonul sama capacité li ma gëm la reyandi sama life ba am ka ay wax indiw ko dama kaa jëf nit ñi gis kon gars bu ñu nax nit ñi li ma ne nañ ko def rek mu ne. lu mënta ne mënta ne